sopp nabi chers jeunes yu enquête 221 dal leen jàmm dal te leen jàmm ci li gën a fës yett yëglekaay ñu commencé kook les échos yéenekaay mi des waat ci jaxas-jaxas gu métti nga xamante ne ni président Macky Sall def na ko ca cour suprême balaa mu doon génn réew mi yéenekaay ne ni defoon na ko fa coow lu rëy la jur ci biir magistrat yi waxuma la sax Siré Ali Ba mi nga xamante ni dem na retraite waaye juge Abdoulaye Ndiaye mi mu nommé woon mu nekk président wu cour Jean-Louis Toupane sax moom moo ko mag moom sax moo waroon nekk na président cour suprême nomination nga xamante ni Macky Sall def na ko juge Abdoulaye moo koy a président Macky bàyyi na ko fii lépp nag la ko indi moo di nomination dernière minute bi mu def ci juge Abdoulaye Ndiaye mu jiite na cour suprême fekk am na ñoo xamante ni nii ñoom ñoo ko fa mag ba tey bi desuwaat ci coow lu rëy li nga xamante ni moo ngi ci assemblée nationale nationale ak député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni dañ leen a génne woon ca biir assemblée gannaaw bañ leen numee woon ay ministre ci nguurug Macky dañoo démissionné woon ci seen poste député yi tey jii comme que seen nguur daanu na ñoom ñu bëgg reprendre nag seen poste député yi est mën na nekk yéenekaay bi dañu xamal ni am na daal ñoo xamante ne nii jàpp nañu ne ñoom ministre yooyu perte nañu définitivement nag seen poste député yooyu Aline Souaré moom jàpp moo yi yi gannaaw seen tontu yu métti nga xamante ni defoon nañ ko ministre porte-parole du gouvernement bii di Moustapha Sarré jamono ji delloon nañ avance de Abdou Mbow président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar sotti na laa la wax ndox ci safara si doon jax-jax yi gannaaw ba Moustapha Sarré porte-parole gouvernement bi xamle woon ne amul benn député boo xamante ni reconnaître nga résultat yi ñu génn ci élection présidentielle yi ñu génn ba noppi di opposer de politique générale au premier ministre yi nekk majorité ci assemblée nationale bu ñu jéemee bloqué na gouvernement bi président de la république dina jël ay mesures mbiram lii merloo woon waa benn Bokk Yaakaar ñu jàpp ne xupaate lay ministre porte-parole du gouvernement bii def waaye du leen tey jël seen responsabilité ni ki démb nag seen rencontre bi nga xam ne député benn Bokk Yaakaar yi amal nañ ko ci assemblée nationale delloo nañu avance de reculer nañ de ndax lañu ca tënk bokk na ci bañ a xiiroo ŋaayoo waaye jiital waxtaan pour mën a def nag seen liggéey correctement le point actuel def taxaw seetlu nag ci coow lii nga xam ne moo ngi ci assemblée nationale Doudou Wade nekkoon fi ancien président groupe parlementaire libéral bokk ci PDS jël na juróom-ñaari di dëggam na teg ko ci table bi jàpp nag ne erreur bu rëy la ministre porte-parole du gouvernement bii def Moustapha Sarré li mu wax dafa ëpp waxuma la sax dafa taakale député yi waaye daf leen a lii mënoon naa ñàkk Doudou Wade di xam ci biir yéenekaay bi ne motion de censure mosoon fee am en waaye boo moytuwul mën na amaat nag ci Sénégal gi ndax ñii ñu séqal nag ci ay menaces lañ bëgg a loolu mënul nekk Seydou Diouf di député di xam a Faye mu am ndam lu rëy ci élection présidentielle yi ñu génn noonu la falee seeni député ñu nekk ci assemblée nationale moo xam yu bennoo moo xam yu wallu moo xam yu taxawu war nañu am fullaak fayda gu toll ne li ñu war a def danañ ko def ca biir assemblée nationale du ay xuppaate moo leen di reculer loo soirée di expert en droit parlementaire nee coow li nga xamante ni mu ngi ci assemblée nationale jarul négliger de te c'est une première fois bi muy soog a ñëw nag ci nguur gi en 2000 itam daawuñu xupaate ak a jël ay kàddu yu ñagas di ko teg nag ci député majorité bi lu jëm nag ci benn bokk yaakaar ak seen ancien ministre yi nga xam ne dañoo bëgg a delluwaat ci assemblée nationale yéenekaay bi nee na amul loi organique bu ko appuyé de surtout alinéa 3 bu article 54 amul laa la wax loi organique bu ko encadré kon nag ñoom ancien ministre yii mën a guñoo delloo ci assemblée nationale source à delluwaat ci sorti Doudou Wade di membre di responsable ci PDS ancien président groupe parlementaire libéral lu jëm ci motion de censure bii nag moom Doudou Wade maire ba ci def jàpp ne ministre bii ay kàddoom nag dafa ëpp li mu wax ëpp na ba jéggi dayoo te moom nag du ko bett bu fekkee ne député yi mer nañu de censure ndax su boobaa luy njig di njaag rek ministre porte parole du gouvernement bii moom mooy njaag duudu wàdd yemu ca ndaxte mu ngi xam la ci biir yéeni bi ne ñun waa PDS ànd coalition Diomaye président ñu teree wax dëgg de dëgg la wax de Moustapha Sare ngan di erreur la def erreur yu grave faute boo xamante ni pour nga réparer ko du yomb dem na sax bay xam la ci biir yéeni bi ne nguur goo xam ne ñaar fukki fan dong la defagum mu am ciy menacé lii nag la muy junj neexul yemu ca moom Doudou Wade méngale na tamit déclaration Moustapha Sarr mi ne bu fekkee ne match buy soog a tàmbali la benn ci joueur yi joué guñu sax 20 minutes mu créé fi penalty lii dong nag la Moustapha Sarr def dee majorité bi nga xam ne moo ngi ci assemblée nationale nag Doudou Wade mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne dialogue rek dialogue dialogue kase nag moo mën a tax gouvernement bii li mu bëgg mu am ko ci assemblée nationale waaye du ay xuppaate ak i menace moom daal Doudou Wade bu sañoon gouvernement bii jiital waxtaan entre ñoom ak opposition opposition bi ak sax nag majorité ba nekk ci assemblée nationale moom responsable PDS bi tamit mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne ànd bi ñu ànd laa la wax ak coalition Diomaye président dañ leen doon accompagner kese nag pour ñu am ndam ci élection présidentielle yi ñu génn waaye PDS bokkul ci coalition Diomaye président def na tamit critique moom Doudou Wade ci yenn ci ay membres responsable PDS yoo xamante ne nii topp ñu bëgg-bëgg parti bi de lu leen neex la ñuy waxee teg ko rek waxtaan tamit ak Charles Émile Abdou Ciss di ancien directeur bu solde dañu ko faa dàqoon la tax ñu dàq ko dellusiwaat na ci ne Abdoulaye Daouda Diallo ci boppam moo ko woolu xamal ko ne ko defoo dara nag ñun ñoo sentir dàq la rek daal lay dàq lii moo tax nekkatul directeur solde wax na tamit ci reddition des comptes yi mu jàpp ne loolu lu war la doxalinu guvernement bii joxe na ci xalaatam la tribune yéene kay ne li jëra taxaw lu kay mooy waxtaan wi nga xamante ni président Macky Sall séq na ko ak Macron ca Élysée bu France ca biir palais ba da la président Macky Sall dem waxtaan Macron waxtaan bu secret boo xamante ni nii yéenekaay bi xamal nañu ne sujet yi ñu séq ñoom ñaar bokk na ci nag défaite bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar am na ko ci élection présidentielle yi ñu génn waxtaan tamit ci féewuloo gi am ci diggante président Macky Sall ak candidat am ba woon di Amadou Ba limitation mandat wu président yi nekk ci biir Afrique bokk na tamit ci li ñu war a waxtaanee moom président Macky ak Macron war a waxtaan tamit ci Bassirou qualité amul lenn lu mu apporter laa la wax sénégalais yi ci temps wu Abdou ba ci Macky Sall ay milliards yi milliards la ñuy leb bor yoo xamante ne nii dafay gën a diis ci suñu ndodd te teewul dund gaa ngi gën a cher jafe-jafe yaa ngi gën di continuer direct news na li jëra taxawaat seetlu kay mooy suñu président yi nga xam ne ku ci pare ci nguur rek dem di servir nag réewu France tàmbalee ko ci Abdou Diouf mi nga xam ne ba mu mujjee ba mu génnee ci nguur gi mooy nekk président organisation internationale de la francophonie Senghor moom mu ngi woon ci académie française Macky Sall jamono ji moo nekk envoyé bu 4 di servir réewuk France lii tax yéenekaay bi def ci taxaw seetlu ne mennam Abdoulaye Wade daal mooy koo xam ne même ba muy nekk sax président de la République fullaak faydaam moom la amoon daawul nekk ci ginnaaw France wéeru ci ñoom moo tax boo doon xool doxalinam indépendance économique la woote woon waaye wéeru wutoon ci réewuk France même ku am seddu laa la wax ci ay partenaire am Inde la woon Chine ak réewuk naar yi yéenekaay bi di fàttaliku base militaire française bi nga xamante a ci tànk yooyu la jël bëggul benn yoon di nekk ci ginnaaw réew France di topp si seen waaw ak seen i déet li mu woote moo di partenariat bii ñu xoolaat ko ngir Sénégal gi mën ci gis boppam Vox Populi ne bokk na ci bëgg-bëgg tam président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay nag dooleel suñu secteur privé bii te ni ki démb dong nag jàkkaarloo na ak acteurs yi waxtaan ak ñoom ngir mën a xam lan mooy seen jafe-jafe moom président de la République sàkku ci secteur bu ci nekk nag ci secteur privé yi ñu defal ko ay proposition yoo xam ne dina ci mën a sukkandiku seen i jafe-jafe loolu nag daf koo soxla ca ne mu gën a gaawee ñu jébbal ko premier ministre Ousmane Sonko mu validé ko ci conseil des ministres après ñu jàllale ko nag ci conseil présidentiel bi ñuy waajal lii lépp na ngir mën a indil ay solution sénégalais yi surtout ci lu jëm ci wàllum dund gu cher gi ñu wàññi ko waaye tamit secteur privé bi mën di jël ndawu Sénégal yi ñuy liggéey yéenekaay bi deesuwaat tamit ci réduction de comptes yi nga xamante ne nii bu ñu sukkandikoo ci Birahim Seck di coordonnateur forum moom jàpp na ne bu fekkee ne séparation des pouvoirs am na vengeance mën naa ñàkk nag ci ñi fi nekkoon nekkoon ci nguur gi loolu nag gëm-gëmu boppam la Birahim sekk di xam ne ci biir kaay bi ne moom bu sañoon ministre yi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye danañ wàññi wax ji de wax ji moom la ñu war a wàññi jublu ci liggéey ndaxte looloo tax ñu tànn leen yemu ca moom Birahim Seck jàpp na ne erreur yi amagum fi mu toll nii yépp nag ci communication la kon nag ministre yi nañu wàññi seen communication jublu ci wàllum liggéey loolu kase fi mu toll nii moo nekk seen problème ndax coow li fi amagum nii yépp nag jugee koowul ci opposition bi waaye ci ñoom lay jugee kon nag nañu wàññi wax ji daal di commencer liggéey bi <laughs> <laughs> yàlla baax na yàlla bari na sutura ñu yéen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah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 yaram jokkool ak ñun ci 77 604 07 71 pharmacie Al Maktoum daal seen jàmm ak seen wér yaram ak naataange lii rekk moo ko tax a jóg jaaraama pharmacie Al